رب لا إله ci santam di kontaan effectivement ci teewaayu presse bi di jaajëfal conseil d'administration bi nga xamantane kenn amul seen fay di fatelini rek conseil d'administration bi mu ngi exister depuis 2014 mais jeton de présence yi mu ko yi mu tambalé jot mu ko tambalé jot depuis deux ans Té 50 000 la par ñaari weer Moy buñu amé amee waxtaan war waxtaan ci ni SODAV war a doxe ak yi ñu a rectifier ñi fi nek nak ay kilifa lañ. Do ay nit yo xamante dañ leen di yónni walla dañ leen di defloo ñuy def li wundu waxtaan bi tey mooy dañu jóge yàggul dara ci benn réunion fii ci sunu biir maanaam loolu ñuy woowe néegi yëtoo ci biir néegi yëtoo boobu ñu jóge fa am lu génn ci média yi lu mel ni Youssou Ndour ak Macky dañu am problème ñu bëgg a jël euh, moo waral ñuy auditer ngoone ci même sax booy liir léeg-léeg article yi ñu ne Ngoné Youssou Ndour moo ko fi teg may rappeler ni ngoone dañ ko fal te balaa Ngoné di fi ne Angèle Diaban moo fi newoon Angèle jaban nekk fi ay at démissionné pour des raisons personnelles bu leen neexee après mën ngeen fi jël numéro Angèle Diaban ngeen laaj ko lan moo tax mu démissionné dina la wax lan moo dina leen wax lan moo tax mu démissionné Angèle moo mu ñuy wax xëy na li may wax amul solo mais man ak moom ñoo bokk koñ ñoo bokkandoo woon groupe de danse bu tudd New Star Children jàngandoo lycée Limamou Laye tey mu ngi ci cinéma man maa ngi ci rap te mu ngi ci conseil donc loolu dafa am solo ñu koy rappeler leneen li ci topp mooy ñiy jóg di wax sodav lii sodav laa di ŋànk sodav te koo yàbbi ci loué na immeuble immeuble bii ñu nekk ak appartement lañ fi jël pour di fi liggéey parce que li waral loolu mooy yéen ñëpp xam ngeen ni ex BSDA

ba jamono ji ñuy wax 650 millions lañ ci jot mu ñuy dimbali ci fonctionnement mu ñuy dimbali ci fay bor bi fes fesmaan amee woon di ñu dimbali di fay effectivement li RTS amee woon bor parce que dañuy tek wayu artistes yi duñu lan fay li ñu nekk di liggéey mooy li SODAV nekk di ko xeex di ko liggéey ba ñu toll ci ay statut de l'artiste toll ci yeneen ak leneen xanaa kay dañu wara a sodaf nako na ko waaw góor na ko ay jàmbaar ngeen parce que tey artiste yi léegi lañu ñu gën a sawar jóge seeni kër jubali biir sodaaf parce que am na tey luñ fa yaakaar boo sodaaf kañ la gëj a am ay ran biñ ko yoree ba léegi mu ngi am ay ran nit ñi di fa dem di saytu di xool di laaj mu intéressé leen parce que effectivement ñu ngi fexe artiste bi jot ci àq ak yelleefam jóge ci bu feebaree ne dimbali leen ma fii artiste bu feebar àdduna xam ko artiste bu feebar àdduna xam ko muy ñi fi jóge du duma tudd seen tur artistes yi dañuy toog di am ay problème mu luwaas lan moo dugal artistes yi ci sàmbaay mbayaan bu nekk bu metti parce que tout simplement li war a jëm ci artistes yi te ñi leen ko ameel nekk fii ci réew mi sodaar nekk di ko xeex ba ci wàllu copie privée dañu bëgg ngeen xam ni nag dafa am ay enjeu du ñu société bii nga xamante ne dafa nekk société de droit privé ñi nga xamante ne ñooñu mag ñi ñu fi jiitu xeex ko ba jot ci ba agrément bi yalla def ñu signé ko en 2017 ñu ñafe ko def ko ñu bëgg léegi parce que forcément on lit parce que dafa mel ni rek nga ne woy mais malal oui, rakku Racine la wala rakku Mamadou Talla donc oui donc gars la and wala donc mu ngi jot ci lii wala mu ngi jot ci la pourquoi mënuñu comprendre ni mën nga bok nit nday ak bay fekk il ne faut pas faire ce lien là wala yow nga am sa xex bo xamantene ne yàkkee ko am yéen a ngi koy depuis 1960 hein? Ah, ngay jël xex yi diko ko toxal ci ay rakam wala diko ko toxal ci ay mbokam wala diko ko toxal sax ci li nga xamante ne moom lañ ko dénk ñun nag ñàkkuñu fayda ñi fi nekk ay kilifa lañu conseil d'administration réunion la boo xamante ne ñoom pendra dañuy yuuxu ngoone ba ngoone tiit ñun ngoone du suñu ndey du suñu baay du suñu yaay du suñu nijaay du suñu yumpaañ moomuñu moomuñu ñàkkuñu fayda ni ñu amee sañ-sañ di yëkkati suñu baat ci yeneeni kuréel di ko di wax ñu sut ngóone lees li ñu xalaat ci biir conseil d'administration bu ñu amee suñu xalaat dañ koy wax ngóone rabbi laa ilaaha laa rabbi laa